ngir ngay jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci Xidma production da ngay beus fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci bi production la scène du mouridisme bànneex bànneex rek. jërëjëf am nañ ko bu baax am nañ ko bu baax Mbacke am nañ ko bu baax. maa ngi sant bu baax. jërëjëf maa ngi sant bu baax. jërëjëf jërëjëf boo gisee boo jërëjëf man maa ngi sama yéene day ko rek sama yéene ci yow day dolli ko rek foo toll rek foo toll rek sama yéene mi ngi ci kaw. xam naa ko ko ngi ci kawam. non nekk la nekk la dama lay toog joon ji warul sax waaye kale kale ak mbëggeel da koy waral yaa man bi am daax yi taati nii al bësëm mbëggeel gay tax tudd tur bi yaa Moustapha mu sàllalu ko looloo tax ma jëla kale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 ma Production, la scène du mouridisme.